Gandigaal bokk ci commune Malicounda ca département Mbour teg nañu loxo vigile bi maanaam day yëngu ci wàllum gardiennage mu ngi wuyoo ci turu PMA B Dia toll ci juróom-benn fukki at ak juróom-benn moom dañ ko jàpp lan ko jàppee nit yi nañ leen ko bi ñuy ubbi waaye dinañ ci ñëw waaye day ak jàppam dëkk yooyu yépp ñu ngi koy waxtaane ndax lii moom kenn mësu koo dégg. 66 ans nga def sam xel ci gune soo xam ni fukki at ak ñaar la am yegg ci kawam ba xale bi non seulement gaañ nga ko beneen bi ci des mi ngi en situation de détresse nekk ci mbedd yi di yooxu loolu nag tax na ba dëkkandoo ya nekk ca gàndigaar rawatina diwaanu mbuur mer nañu ba fut altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin yemoog bisu tabaski paa bi dafa bàyyi ba nga xamee ni nag wayjur yi bari ñu ngi ci xaru tabaski soxna yi ñu ngi ci waañ wi di togg nit ñi ñu ngi dem di balu àq kenn ku ci nekk xam nga tabaski léeg-léeg nga gis ku def juróomi at ci ab àll wala mu def at du giseek ay mbokkam atmosphère baal ma àq boobu ak waxtaan week ci la pa bi profito jël gune gi daal di koy dugal ci ab kalandoo ni fes ni menteñ ndekete yoo ba mu jëlee kalandoo ba gàndigaal mu ngi koy indi ñaning ba mu yëgsee ñaning mbokk yi moom bi mu daldi jël xale bi mel ni ku jàkkarloo ak moroomam futti xale bi ba xale bi set wicc mu yàgg ci kawam commencé di def ay attouchement sexuel ba mu jógee ca loola mu di commencé yegg ci kaw xale bi yegg ci kaa xale bi bay yëg bànneexam ba mu paree mu ni yàlla xale bi ci mbeddu ñani yi daal di daw dëppaat dellu fa mu fa mu nekkoon xale bi tumuranke loolu ci bisu tabaski ci mbeddu ñani yi di jooy di xelli rangoñ ak di ndey saanu bi ñu toogee diir bu xawa yàgg ab chauffeur yem ci xale bi ci mbedd yi xale bi di bittan ñi ko chauffeur bi daal di koy laaj ni ko yow lan moo xew ana say wéyjur moom mu ne Gàndigaal la jóge mu nettali chauffeur bi ni ko daal benn paa moo ma jële Gàndigaal indi ma fii yegg ci sama kaw sànni ma ci mbedd yi chauffeur bi laaj ko ay wéyjuram mu ne ko Gàndigaal chauffeur bi yàpp ko ba mu demee fekk nag ay wéyjuru xale bi nekk ci wër gu metti ñoom itam xibaar bi daanu ci seen kaw tiis loolu fekk leen ci naqaru metti ñu jël xale ba daal di yóbbu ci benn barabu fajukaay ba nu ko yóbboo nu gëstu xale bi ca suba ga ca la ay waajuram def plainte contre x ca brigade de gendarmerie bu mbuur ñooñu itam daal di jël enquête bi yaatal ko di ko yaatal di ko yaatal ba mën a teg góor gi loxo bañ ko tegee loxo mbokk yi ginnaaw ba mu defee jëf ju ñaaw ji nga xam ni def na ko ñu daal koy bett ci kër gi nga xam ne fa lay doon garde mu daal di fay làkkatu ñu daal di koy jël yóbbu ca brigade gendarmerie bu mbuur bën ko yóbbee ban ko dégloo daa daal di nangu la nga xam ni moom la ko xale bi di tuumaal da ko nangu ni moom moo ko def nettali na sax nan la enlever xale bi fekk ko ci atmosphère muy aay ak ay moroomam di fo mu enlever ko ba dugal ko ci clando bi te askan wa toog sax ca mbedd gàndigaale sentirul ni am na xale bu réer ay moroomam itam defuñu benn effet mën a yuuxu walla ñu def benn action mu nettali film boobu yépp nettali itam bi mu yëg see ni mu yëgg ci xale bi ba am satisfaction ci wàllu banneex loolu lépp da ko nettali enquête kat yi yi déglu ko mu gën a leer nee na itam bi mu paree dafa sànni xale bi ndax bi mu ko sànnee ma nga tàmbali yuuxu ndax xale boobu mu ngi ci euh, situation bu doy ay cri de la xale bi doon def moom góor gi ba mu ko sànnee nee na daal daal di dëpp dellu ci ay yitteem samp xelam moom góor gi nga xam ni moo def loolu fa mu mujje mooy seytaane ma jàpp man xawma lan moo tax ma def lu ni mel rawatina bisu tabaski maa ngi jéggulu bu baax a baax foofa la mujje waaye ba nga xamee ni ab garde à vue am diire ba jeex na moom père de famille boobu toll ci 66 ans déféré nañ ko ajjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin ca parquet bu Mbour lañ koy toppee nag mooy détournement et viol de la petite oo caam waaw daal di koy yenu yóbbu yegg ci kawam ba am satisfaction daldi ñëwaat ndànk ci kër gi mu doy waar lool mbokk yi feebaangoogu feebu yéeme 66 ans ngay def sa xel ci xale bu am 12 ans lu day ni bisu tabaski nga profitoo ci atmosphère boobu yóbbu xale bi ba gàndigaal ba ñanin yegg ci kawam ni ko yalax ci mbedd bi lii ñaaw na fa ñaaw yem fa la tàmbali ndax kenn mënta jàpp ni góor gi war naa mën a jël xelam xalaat ko ci xale bi ba mën a yegg ci kawam loolu kenn ñaaw xalaatu ko waxuma laa nga def ko ko ba pare ci fi ngay liggéeyee wëlbatiku sànni ko ci mbedd yi damay doomu jàmbur bàyyi wéy wéy juróom ci problème seen tabaski yàqu amatuñu xalaat talatuñoo toog añ seen xar manu rey balu àq yéen doon def dagg ko dëkk ba yépp jug ku ne di wër xale bi nga def jëf ju ñaaw ji lii yéeme na lii kooko nit li ay gént lay doon ci yow ndax nag paa bi lu mu metti metti metti dem takki soxna dafa gën loolu bu fekkee amul soxna bu amee soxna itam mu wutim ñaareel moo gën muy jëlum xa waaye nag am na ci loo xam ne doo xam feebar la doo xam ak mbon la ndax nee na saytaane xëy na da koy jàpp waaye mi ngi jéggulu foofu la mujje yow kay boo demee bay jégglu kay bul def doomi jàmbur nga jëlub kalandoo borom kalandoo ba sax waroon na koo laaj yow kii nga yeb fan la jëm xale ya mu doon aayal waroon nañu yuuxu ba waa dëkk ba génn ndax tabaski dëkk yi suñu dëkk kaw yi day fees dell ki nit macha allah ñëppay julli si ñëppay julli si ñu ne en famille en harmonie xale bi bu defoon effort rek kalandoo ba dañ borom kalandoo ba sax mën nañ koo jàppe complice parce que moom xëy na dañ koo yebloo rek waaye waroon naa bisub tabaski waa ji ni mu profitoo ba yeb doomi jàmbur ci kalandoo boobu ba dem borom kalandoo boobu dañ ko waroon déglu parce que li tax ñu koy déglu mooy mën na ne sax complice mën na nekk itam mu bañ a xam ki muy yeb kan la jàpp ni xëy na doomam la ju ñëw tabaski ci dëkk bi war a dem ci mbokkam waaye loolu lépp doy na waar loolu lépp doy na waar parce que naka nga mën a jëlee xale bu am 12 ans nga mën a am courage yegg ci kawam ba am bànneexu sëy non loolu ku koy def xëy na da nga nekk ci yeneen état mais nekkoo ci état bu licite parce que loolu dëppwut ak ni société di doxe ak comportement nit ku baax beneen bi ci des xam nga ni xale bi ba mu ñëwee seen tabaski yàqu na parce que dafa ñëw rek waajur yi nii noo li mënul ne yóbbu ko ci kër docteur yi ba nu xëyee leen def seen plainte brigade bu mbuur ubbi enquête ba man laa teg loxo mu ñaaw salte doy waar lii nag day wane rek ni buy jur yi aussi bu événement dikkatee war nañuy contrôler bu baax a baax seen doom yi bu dul événement sax seen xale yi ne ci mbedd yi parce que léegi nit ñi dañoo yor comportement yoo xam ne xamuñu ko woon kenn xamul ay comportement étranger la kenn xamul dañu bëgg jël te yoonu mbon waaye lu ci mën a xew rek waajur yi war nañu gën a vigilant ci seen doom yi boo nu ñëwee gis gan ci dëkk bi xale yi dajaloo nañu yooxoo waa dëkk ba génn du question dañuy takkal mais prévention la bu nu génnee waa ji dina identifié wu bu sampee ay xel daw ngeen xam ni kon musiba la naroon vigilance boobu dafa war a am kon mbokk yi fii la yem rekk ñuy bàyyi Euh, ngeen di abonné ak di partage bu nu ñëwee mën di leen nettali li gën a fës ci suñuy rubrique fait divers yi ah ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jox rendez-vous ëllëg ak yeneen sujet ci suñuy plateforme jërë ngeen jëf ñu yendu ak jàmm.